jërëjëfati suñu sang bi hmm. jërëjëfati jërëjëfati Serigne Béthio yàlla nañu gën a dimbali te sax ki li ñu dimbali mbokku taalibe yi Daaru Salaam Matlabul Fawzeyni nuuru daare ni maa ngi woo mbooleem mbokku taalibe yi waaw na ñëpp yegg si mën na salaam ci biir kër gu mag gi maa ngi sàkku nag ci ñëpp dal ci ñëpp dal nañu xam ne sëriñ bi jàngal nañu jàngal dañu sëriñ bi du ko fi jóg sëriñ bi jógu fi waaw barki sëriñ Saliou ki sëriñ Saliou waaw li li mënta ñàkk nag mooy lay nit moom day toll foo xam ni moom faw mënta ñàkk mu làqu waaye sëriñ bi jógu fi waaw maa ngi bëgg ñëpp dal nag jërëjëfati suñu sang bi jërëjëfati jërëjëfati sëriñ Béthio yàlla nañu gën a dimbali te sax ki dañu dimbali bokku taalibe yi Daaru Salaam Matlabul Fawzayni Nuuru ni maa ngi woo mbooleem bokku taalibe yi waaw euh, ñoom ñëpp yegg man na salaam ci biir kër gu mag gi maa ngi sàkku nag ci ñëpp dal ci ñëpp dal nañu xam ni sëriñ bi jàngal nañu jàngal dañu sëriñ bi du ko fi jóg sëriñ bi jógu fi waaw barki sëriñ Saliou waaw li li mënta ñàkk nag mooy lay nit moom day toll foo xam ni moom faw mënta ñàkk mu làqu waaye sëriñ bi jógu fi waaw maa ngi bëgg ñëpp dal nag